برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله الله تبارك وتعالى أن يحل كل البركات والخيرات والاماني لكلنا ولكل المسلمين في سائر أنحاء العالم mbokk téléspectateurs yi ñu leen di nuyu beneen yoon képp kenn ku nekk si yéen si turam ak santam di leen wax ne tey ñu ngi fii nii ci buntu kër xalifa saahibul faydatu tijaaniya Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass mu oote woon fii ngir joxe benn kàddu gu am solo gu am njëriñ ñu bàyyi rek eh, kenn si rakkam yi Cheikh Mahamadul Mahdi Cheikh Ibrahima Niass mu leeral mbokk téléspectateurs yi la moo waral teewaay bi fii tey. bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àddina bi yëpp. di ñëw fii ci Medina ci kër xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim nias ni nga xamee ne noonu la ko dundalee muy weeru koor wi nga xam ne daf ko jëlee ci Cheikh Ibrahim muy weeru koor su jotee muy weeri alxuraan dafay jàngale di firi alquran di dem ci jumaaji digal nit ñi ñu dem ci jumaaji di wasifa di jaamu yàlla mu firi alquran ba timis jot waxtu wu ne rek lépp lu feeñ ci diine rek mu leeralal ñu ko ñuy sant yàlla bu baax ci loolu ndax eh, ñi xamut dañoo war a uti ñu xam ndax fas'alu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun da ngeen soo xamul da ngay dem seeti borom xam-xam yi te bi nga xamee ne am nañ borom xam-xam moo xam ne lim jël yëpp mu ngi ko roogaatee ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu hal yastawi allazina ya'lamuun wallazina laa ya'lamuun abadan duñu amale mukk ñi xam ak ñi xamut ci kaw loolu moo tax sëriñ bi dañ ko ñaan pour mu sànni ay kàddu ndax daf ñoo xamal ne laylatul xadri bi suñ demee ba seet bés yi niñ toftalantee ci weer wi gis na ne bési tay bii mooy bés bi nga xam ne ci lañu war a jaamu yàlla di ñaan yàlla nga xam ne am nañ yaakaar ne bési lijaaba la moo tax ñu bëggoon ko jotal jaamu yàlla ci àddina bi yëpp kon ñu déglu sëriñ bi comme ni ñuy jàngalee rek ci diine lislaam yaay rasulillah aleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu mboolem déglukatu rajo Kossy TV di leen ñaanal yàlla yal yàlla may ñu ñun ñëpp tawfiq am may ñu ndimbale méngooñu ci zaahir ak ci baatin teg suñu ay tànk yëpp ci yoon boo xam ne dina ta sekk ngir màndeem jullit li ko yàlla sant ci àddinaam mooy di di xamlu rek di xamlu rek waxtu wu nekk muy xamlu rek waxtu wu nekk itam muy gën a dolli itteem jëmale ko ci xam loo xam ne njëriñ dina ci nekk ci moom pour moom waaye njëriñ dina ci nekk pour ñeneen ñi su ko defee loolu mooy samp loolu moo samp Mérina moo samp daara Mérina ñun waa Mérina yëpp ci école boobu suñu itee mooy xam-xam boo xam ne dina jëriñ dina jëriñ dana jëriñ ki ko xam dana jëriñ itam ñi koy déglu bokk na ci xamoon ne alxames ajjuma bu mujj ajjuma bu njëkk ajjuma bu feeñ tóol ci fan yu mujj yi rek fukki fan yu mujj yi guddi googu guddi ajjuma googu mooy laylatu xadar ah, mooy laylatu xadar borom xam yu bari daje nañ ci loolu wax nañ loolu bon nag guddi bi nga xam ne moo première ajjuma ci fukki fan yu mujj yi tasanteeg euh, euh, tasanteeg muy ajuma bu tóol te yonent def na yabxasuwa fi saabi atin tabqa feef nag ajuma ji ci la saabi atin tabqa ñu dugg ci ñun ñi oor euh, àllarba ñun am nañ tawfiq te seeg bésu aj bésu laylatu xadar bi bët sedde ajuma muy première ajuma ci première ci fukkeel fukkeel bu mujj bi ba nag moo tax gis nañ ne suba ci kaw njàngat yooyu yëpp borom xam-xam yi wax ne suba ci ñun ñi oor yowmal arbaay suba mooy laylatul qadar ñu xamal ñu ñu ñu jàng ñëpp ñëpp ñu xam loolu def suñ góorgóorlu bu baax a baax a baax ah, ndax yàlla yokk ko laylatul qadar nag nit ñi dañ koy ut rek dañuy cherché rek ah mais kenn waxu la ne mi ngi nii yonent nee na wàcc naa jóg bëgg leen a xamal laylatul qadar kañ la waaye diw ak diw xuloo yàlla yëkkati ko ah xamatuma ko bon nag séentu leen ko ci fukki fan yu mujj yi bu juróom-ñaari fan dese bu juróomi fan dese bu ñetti fan dese euh, séentu leen ko ci yooyu ëllëg mooy première juróom-ñaari fan yi des euh, donc euh, te borom xam-xam ne nañ tóol bu teseeg àjjuma rek mm, mm, ci fan yu mujj yi mooy tu xadar bon ci lañ nekk nii yàlla ñu ko yàlla nangul may ñu li yaakaar ci leertu xadar yëpp di ko ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla may ci suñu guddi gi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan